asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki Sénégal mbokki jullit yi seen xarit seen soppe Makhtar Taalib moo leen di nuyu di leen ziyaar waaye di leen indil xéewal gu rëy gi nga xamante ni seen agence bu mag bii di Kiswa Travel def na ko muy organiser umra bu mag ca màkkatal mukarram ak ca madinatul munawwar waaye tuddee ko umra bamba delloo njukkal Serigne Touba xaadimu rasul di ko amal le 22 novembre ba le 2 décembre incha allahu rabbi ñu di ci woo ak di ko yëgal képp ku di julli te am kàttan ak man-manu dem ca nga teel a inscrire yi balaa billet di jeex njëg gi nag mu ngi tàmbali ci 1 million 900 képp koo xamante ni bëgg nga ci ay leeral yu gën a leer ci sa bopp wooteel ci numéro téléphone bi ci baawu écran bi incha allahu rabbi képp koo xamante ni inscrit nga di nga dem ci ay conditions yu leer waaye diiran umra bi nga xamante ni yaa ngi màkkatal mukarram ak madinatul munawar lépp loo xamante ni war na ci yow ñoo la ko yoreel kon Kiswa Travel indi ni xéwal goo xamante ni mësul am ci wàllu aj ak umra kon nag gaaw leen ngeen contacter leen képp ku dib jullit ñu ngi la ciy woo waaye rawatina ku dib murit fas yéenee dem ca màkkatal mukarram ak madinatul munawar delloo njukkal Serigne Touba Xaadim bu leen ko wute benn yoon